وصلى تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Seex Mustafa Mbàkke Sëriñ Baara ma jóg la géyal Sëriñ Tuuba te sakku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke Sëriñ Baara ci kattanug Yàlla ak njool Màkka ak ña ko lay tàmbale ci mbirum Sidi Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqulaahi sayyiduna

la yàlla fab yu ni mel jagleel sëriñ baara moo fañ a fab tabam bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom siidi lamin baara moo sañ a fab tampamub bur yàlla dem baaras di soppi atte ya moom siidi lamin baara jaasi dogal jëfa kun la daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox siidi lamin baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja daas ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Siidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baat jaaseem ja ba mu ñëw jox Seyxi Bamba mu jox Siidi Lamin Baara kiwum na làmb ja ndax bàkka moo man caaras waa jundulaayi ña jiinal sëriñ Baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb su fi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñépp a nga naan ji làmb su fi fel sampub sëriñ baara waa mulku ak malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngir siidi lamin baara fadat wa yaayiluhum wadat fa yaayiluhum wasam fa yaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas ma yaayiluhum wasan ja yaayiluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenu lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenu lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras aras wóor na baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi ma bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla mi moo bëggal boppam sëriñ baara buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa raaluhu ñeen na sëriñ baara buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaa woo xuraaloo ñeel na sëriñ baara soppe boroomam la dib xejjam bu abadan yàlla na nu bur def xejjub sëriñ baara ki di sibtu maaram waa mbàkke gépp ko xam te waa bu soobee war maal sëriñ baara ñëw leen siyaare sibtu soxna jaar bu so murit yaa ngi nii te mooy sëriñ baara maam kan mooy sëriñ